jërëjëf fee borom Touba. jërëjëf fee borom Touba. jërëjëf fee borom Touba. lii réew bambaa ko moom. réew mi am na mooy fii ko moom. jërëjëf fee borom Touba. lii réew daal bambaa ko moom. jërëjëf fee borom Touba. réew mi bamba mooy kii ko moom. jërëjëf fee borom Touba. lii réew bambaa ko moom. jërëjëf fee borom Touba.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 di tudd sëriñ bi di ko sant ànd koog njabootu sëriñ Touba yi mën naa cee tudd sëriñ Saalihu Mbakki moom Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Mouhamadul Fadal Xaadimu Rasul mu ànd ak ñun ci jataay bi ngeen gis teewaay bi ak yoon wi ci njaboot gi ak cheikh yi ak taalibe sëriñ Touba yépp lu mel noonu nag ku amee ñu gis nit ñi di dox lan lañ ci jublu muy wone rek ne àdduna bi yépp ña nga fay doxal Serigne Touba ci mbooleem continent yi yépp ngir wone ndam lu rëy ngir wone jëf ju rëy joo xam ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul jëfal na ko àdduna waaye rawatina nag der bu ñuul ba tax nu mën a am lu ñuy tudde istiqlaal te moo di indépendance dox boobu nag am na bis bu jëm ci sunu kanam ñu di ko wax màggal ki tax nuy dox moo nu jëkk dox moom Seexul Xadiim waaye kan moo ko taxoon di dox mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moom de doxuloon ngir xëcc àdduna sëñ Tuubaa doxuloon ngir bëgg a not nit ñi baa mu moom leen lan moo ko toxoon di dox masiri kaw ni abdahu xaadima nabi Sëriñ Tuubaa nee na li ma tax di dox mooy fas yéene fésal rek ne man jaamu yàlla laa bu koy jaamoo na mu bëggee waaye may liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sunu jataay tey bii nag tontu na bay bi ci topp <laughs> muy wa amru baraya lil ilahi yasir yàlla mooy juge bi kenn mënu faa yàqal kenn te sëñ Tuubaa nee na yàggam yàggam mbir yëpp dana leer ci kanam suñu borom leer na nañ ñi ba duna teg seen bët sëriñ Tuubaa mu nga xam ne ba muy dox di dem dafa am ñu ne kii jàpp nañu ko prisonnier la bu dee asiru ma al yi daf cee leeralal boppam waaye dafa am woo xam ne daf caa tontu leeral ca way ñàkk xam yi jàpp ne sëñ tubaab bi mu dajeeg nasaraan bi dañu ko jàpp mu ne dalla alladi qad zannani asira gayru lasi yu yassirul asira sëriñ Tuubaa ne ne ki gën a réer ci nit ñi mooy ku jàppe ne dañu ma jàpp man maay kiy yombal lu jafe gayru lasi yu yassirul asira booba lan moo fi jafe mooy taxawal mbooloom diine yëkkati lislaam tudd yàlla ber ko moom sa bopp ndeysaan loolu moo fi jafe woon lislaam bi sëñ Touba di ñëw daf koo fekk takk ay bagaasam am na sax ñu bind na sëñ tubaab yi ñëw fekk na dañoo ren di diine lislaam wa saaka lasi xad jaa wa diinu mayitun fa axyaawu shaxsan fi amakini machia diine la fekk mu dee mu dundal ko ba muy ñaadam ñaadami ji mbedd yi ak kër yi ak pénc yi ak réew yi ba foo dem dégg ashhadu an laa ilaha illa anna muhammadan rasulullah loolu grâce à Cheikh Ahmadou Bamba ci tedd nga am liberté moom boppam gore ci muumi jaam nee na sëñ Tuubaa moo dog muumi jaam yooyee loolu jërul guddal mbokk yi de jërul sorel de koo mas a gis sëñ moo waxal boppam ne wa minhum man in raa nasaraani yaxsibuhu min malaayikatin rahmaan sëñ Tuubaa ne jamono bi may jàmmaarloo tubaab yi ku séen ab nasaraan na nga jàpp ne malaakam yàlla nga séen ñëpp naan pëccët di daw sëñ Tuubaa rek a taxaw wax ci kanam gouverneur général lu kenn duutul nettali te kenn du ko wax te kenn musu koo te kenn du ko jëf Cheikhul moo julli ñaar raka biroon gouverneur général ci 45 minutes Seexul Xadiim keroog ba mu jullee ba sëlmal la gën a yéeme ba mu ne wëlbét daa wax ne ana ko ma woo ci yéen ana ko ma woo ci yéen ñii sëñ Mouhamadou Mamoun ñang yàlla yàlla guddal fanam moo ma nettali ne tubaab bu ñuy wax Kasbar moo ko wax ci kër sëñ ma surang surang na ko sëñ di wax ko Cheikh Abdoul Ahad na ko sa bàyyi sëñ Touba de xaw ma lu ko yàllaam gi defal waaye jaral na ko ndax kere bi muy julli biiru gouverneur fa la ma fekk moom tubaab bee ko wax na ko bi sëñ tubaab di julli biiru gouverneur maa ngi waaye keroog bi mu ne asalaamaaleykum dane wëlbét daan na ko ma woo ci yéen nee na kenn nekku fay tontu baa nga wax dañoo dawandoo rek rek dajloo ñoom ñëpp génn bureau boobu bureau boobu wéet kenn nekkatu fa Cheikhul Khadim moomu nag ba mu jaayanteeg boromam engagé fu si koo jëf bokk yi dafa wax na ñett képp ma tax di sonn ñett ma tax a bàyyi samay kër ñett ma tax a génn sababu xaybati ya anna allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi Sëriñ Tuubaa nee li ma tax a jóg mooy am ca yàlla daraja ju kenn amul mooy jooju ñu doon jaay wa an akuna shaafian li xawmi nag nit ku ñuul kin xeeb ba suufeel ko ma ràmmu leen ba bu yowmal xiyaamee sama ñooñ texe wan akuna xaadiman fi daw mi diirub jamono nag ma nekk liggéeykatu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mooy nekk le meilleur serviteur du prophète Mohammed internet ba addunay tukki kenn du ko doon kenn du ko am kenn mënu koo doon moom keppa boo demee alxaramayni sharifayni muy Makka ak Madina amul xaadimu rasul xaadimu xaramayni sharifayni la am buñ ko tàppee ci adduna benn la sëñ Tuubaa nee na doon gi ma ko doon nag yashhadu bi daa raqibun wa atid fi kulli yawmin benn doomu aadama bu nekk am na ñaari malaaka yu nekk ci mbaggam ki tudd raqib ki tudd atid sëñ Tuubaa na saa yu ñu xëyee bay dem fa yàlla dossiers yi ñu koy jébbal mooy wër nañ adduna ba mu daj Ahmadou Bamba képp mooy Abdullahi wa Xaadimu Rasul